rahmaani rahim barke borom ah. Tuubaa asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki yi bokk yi nga xamante ne bii ñu baaxoo di topp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru wolof wu jot eh, fii ci jumaa ju mag ji ànd ko ak commission bi nga xam ne ñooy séentu lu jëm ci wàllu weer wi ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha Eh, tey jii ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent di àllarba ci diggu tabaski ñu àndandoo ak sëriñ Modou bu Bousso ak sëriñ Abdou Diop imam ak eh, waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom lañ ko baaxoo di àndal fas yéene eh, joxe ndigal li nga xam ne ginnaaw bu ñu sëlmalee timis ba léegi ñoo ngi ci ñu fas yéene maase nag déglu kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci ki yore kàddu commission bi di sëriñ Abdou Diop imam ñu déglu ko ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko sëñ Fallou Galas waxee rek euh, kon euh, nin ba ko baaxee def def nañ ko mooy sëñ bi daan dana yabal ci jumaa ji ñaar fukk fan juróom-ñeent ci weer wu ne ngir nu yéene ci wax ne nañ séentu weer yi teg loo ci waaye xam na ko yëgle bi ñu defee noonu ba noppi ne dañuy génn toog ci toog ci sow di séentu nun ci suñu bopp ak di taatan xibaar yi ci gox yi ban ko defee ba waxtu wi jot nag maanaam ci lan xamee ne maanaam eh, déggun benn eh, xibaar bu nu nee ne weer wi feeñ na booba lan jokkoo kër sëñ bi nag bi ñu jokkoo ak yëgal ko loolu mu ne kon mënees naa yëgle ne fee feeñut kon ñu xamal ne ne weer wi feeñut tey kon suba eh, di di alxemes mooy mottali weeru digg wi bu ko defee ajjuma di benn fanu tabaski kon na ko ñëpp xam ñu xam ne weer wi feeñut suba dañuy mottali weer wi ginnaaw suba ci ajjuma ji la ñuy mooy mooy benn fanu tabaski bi na ko ñëpp xam kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi noo ngi sant nag mbooleem rajo yi fi teew yëpp ay ay Sig FM ak ay jant jant beek ak benn benn FM ak euh, kilifa kilifa gi ah, ak lamp ak euh, nga xam ne moom bu yàgg-yàgg la tala ànd ak noonu noo ngi leen di sant bu baax ci liggéey bi tey sant tey sant beral cant bu baax a baax a baax nag waa Muxaddamatul Xidma ndax coono bu rëy rëy lañ ciy def lañ ci daj kon nag noo ngi leen di sant baax di sant mbokk yëpp tey ñaan sëñ bi mu yàgg fi loolu téwér te ba li mu yéene ci yoone mu def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon topp fii ci jumaa ji kon ñu xam ne eh, weer yu feeñul ginnaaw nag bu ñu jokkoo ak région yi ak département yi ba Bassirou Mbacke mu Serigne Abdou Khoudoss moo ñu nekkaloon Daarul Moxti lëkkale ñu ak Tiwaawoon jokkoo nañu ak ñoom ñoom feeñul commission bi nga xam ne ñoo nekk Dakar itam jokkoo nañ ak ñoom ñoom gisuñu weer wi Serigne Modou Mbacké si mi nga xam ne moo nekk rep moo jiite représentant xalif général des mourides yi jokkoon na ak région yëpp ñoom gisuñu ko kon ñu xam ne rek dégguñu ko fenn gisuñu ko fenn moo tax ñu mottili diglu tabaski fanweeri fan kon ajjuma mooy benn fan bi kon dimanche moo war a nekk bisub tabaski bi incha allahu rabbi kon ñu jàpp ne weer wi feeñul dañ koy mottali fanweeri fan ajjuma mooy nekk benn fan ci weer wi euh, kon gaawu dimanche mooy war a nekk tabaski incha allahu rabbi ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll la woon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.